daal doy waar la waaye nag daat nay wax ne mbir moom danañu ko leeral ak lu ci mante ama ci biir yéen kaay gi de Le Quotidien moom Macky Sall daal wax ne inspection générale d'État dina daal di auditer ci Tivaouane mbooleem li nga xam ne ay service de néonatologie la yéen kaay gi di Sud Quotidien ñu fekk ko moom ji turóomi di président Macky Sall nay wax waa Tivaouane na seen xol sedd ndax yàggatul dara dinaa leen tabaxal hôpital boo xam ne niveau 3 la fii ak ñetti weer liggéey dana commencé yéen Abdoulaye Diouf Sarr waaye Macky Sall mos a jël ay dogal ci mama ah waaye nag bi mooy ndetteelu goo xam ne doy na waar ci Abdoulaye Diouf Sarr journal bi di Sud Quotidien nee na Macky Sall jël na ay engagement yu mat sëkk ci kanamu xalif général des Tidianes yéen a kaay gi de la Serigne Babacar Sy Mansour wax ñi nga xam ne ñooy enquêteurs ci biir enquête bi ñu bàyyi waale xel li nga xam ne mooy dogalu yàlla sunu borom yéen a kaay gi de l'info njiitu réew mi di li nga xam ne moo xew ci diwaanu Tivaouane maanaam bëggatu koo dégg ci réew mi ñi nga xam ne nag ñoo faatule ñooñee li nga xam ne moom la sàkku maanaam mbir mi leer naa ñi yéen a kaay gi de Le Quotidien ñoom Guy Marius Sagna ñoom waa FRAPP France Dégage nee nañu alxamis bi nga xam ne moom la ñu dëg ma la danañu amal nag doxam ñaxtu toogaanu ñaxtu ci buntu ministère bi ñu dénk wàllu wér yaram ke yéen a kaay gi de Direct News Abdoulaye Daouda Diallo nee na mbooleem engagement financier yi nga xam ne jëloon nañu ko lépp lañu ñu respecté nee na benn fan ci weer janvier atum 2023 yokk li nga xam ne mooy salaire u jàngalekat waaye tamit ci biir bi nee nañu tamit 2024 dinañu leen yokkalaat seeni salaire yéen a kaay gi di réew am Mamadou Lamine Ngom ñu gën koo xam ci docteur moom mi nga xam ne mooy faj miir yi di soigner miir yi moom la journal bi di Rewmi Quotidien xëy séqal waxtaan dafay couleur miir yi di ko dessin di fa def ay thème di si communiquer ak société bi daal nay wax ne lu tax ñu daal di koy tuddee docteur des murs nee na ci biir murs yi dafay defar communication di fa wax ci société bi waaye nag di fa traiter ay sujets yoo xam ne askan wi danañu si mën a jëriñu ñu ñëgg ñoom dañoo lànkoon ko daare ne mandat dépôt yi dootuñu ko jëlati ci kasu bu Louga ak Diourbel ak Liberté 6 lu jëm ci seen wàllu payoor moo ko waral waaye nag ki nga xam ne mooy Jean Bertrand Bocandé moom nag daane dala xel yi nee na incompréhension moo amoon ci lu jëm ci wàllum salarié yéen a kaay gi di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu Masaalikul Jinaan niki démb Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ma nga foona waaye fu nekk ci Ndakaaru nit balee na fa ki nga xam ne mooy Alaaji Mbàkke yu fay benn milliard la génne ko addiya Serigne ko ci kees yi Masaalikul Jinaan yéen a kaay gi di Vox yéenekaay nee na ñi nga xam ne ñuy waa police tas nañu ab réunion boo xam ne association LGBT yi ñoo ko doon amal ci diwaanu Ndakaaru journal bi nee na lu toll ci fukki jigéen ay lesbiennes yoo xam ne police teg na leen loxo yéenekaay gi di Stades xëy dañu xibaar naan ñu tey jii final bu rëy am na finalu Ligue des champions diggante Liverpool ak Real Madrid tey ji si samedi ji bu 19h jotee journal bi nee na ci biir match bi am na match diggante Benzema ak Sadio Mané ndax ñaar ñi dañuy xëccoo ballon d'or bi yéenekaay gi di sunu lamb nee na combat guy gi kayre taxawal nañ ko